asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar yéen ñu ñu bëggee sur wasaare lamb wasaare TV kon nuñ koy defee rek di ñu ñëpp àq di baalu ñëpp àq ndax nee naa leen koor oblige di bëggee waat ñi nga xam te ne ñoom ñooñu suivre sur wasaare lamb wasaare TV li ma leen di wax rek yéen amuñu seen fay ndax lépp lu ñuy def rek yéen a tax ñu koy def tey nag dañoo ñëw ci yëmbal ñoo fekk seen champion mu nekk koo xamante ni doo tudd champion yëmbal te boole woo ko ci muy Alioune Seye junior bu écrit waalo moom lañu fas yéene waxtaan ak moom ak li nga xamante ne moom mooy mbër ak diine tey ñu fekk si ko nag xaw ma nag euh, wax dëgg yàlla laajte nañ ko ñu wax ñu fu mu nekk mais mbër mi dafa mel ni bas dafa ragal koor ndax ñi ko gis mu tëdd dañuy dem xool ko yee ko xaw ma nag nu muy demee daal mais bas topp ma ñu dem bas dafa mel ni sama mbër mi dafa ragal koor de Alioune junior bu écrit waalo maa ngi lay nuyu non mbër mbër dafa da nga ragal koor de <laughs> waaye lii nu waa lii nu mu demee nii. gis nga mbër boo leen ñëw sax doo leen doo leen tàggu ga doo leen tàggoo. ah koor moom. koor moom ñi ko ñeme bariwul de. Hmm. Ah, waaw waaye yéen fu fu ngeen jaar ni xam nga rek euh, Wassare laa moo nekk loo xam te ne ñun dañuy ñëw rek na sarax ci biir gaay koor daal moom bàyyi kenn ñemoo ko de waaw kenn ñemewul koor de waaw mais toogal. yéen ko gisandoo Alioune Seye junior bu écrit waala tey moom lañu dalal mbër ak diine bas gisa dañ ko fekk dañ ko fekk xaw ma day nelaw xaw mbër mi koor ko jàpp loolu yëpp dañ ci waxtaan ak moom bas ñu commencé waxtaan bi ak mbër mi. Tabara yow Tabara yow kii nga de. waaw Bas mbër ak diine kon ni ma ko waxee rek dañoo nekk ci li nga xam te ne moom mooy koor wax dëgg yàlla yéen ñi ñuy seetaan gëm naa ni li ñu leen indi indil neex na leen parce que tamit gis nañ apréciation yi tey nag Alioune Sèye Junior bu écrit moom lañ dalal gis ngeen fekk nañ ko mu doon xaw ma doon nelaw xaw mbër mi daal dafa ragal koor li yi di wax naan mbër yi ñemewuñ koor ndax amaana tey bu nekku woon koor yaa ngi koy gis ci leneen tey ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy koor gi moom nan la koy dundee ak mbër nan la war a wooree loolu yëpp dañ ci waxtaan dugg ci li nga xamante ne nag moom mooy carrière ndax mënul ñàkk duñu waxtaan ak mbër ba pare te dugg ñu ci li nga xamante ne moom mooy ci làmbam dañ koy jox mu nuyoo ñu continuer waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu. waaw gannaaw bu sant yàlla julli si Yonent sant suñu ñaari waajur santaat sunu sëriñ maam Malick santaat sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Babacar Si di nga yàlla yàlla yokk ay leeram taf ñu ci barkeem maa lay nuyu maa lay fay yow Fatima di tamit di nuyu sa cameraman bi Bas maa leen nuyu bu baax a baax a baax mais yéen li ngeen def nii moom yow sarax ci biir kër gi daal. <laughs> Ah, mais bett bi bett bi kii waaw ah. ah, mais xam nga rek xam nga yéen moom ci affaire yi ci ñun ñun ci affaire lañ bokk. waaw mm. mais daal. affaire bett na ma daal. Hmm. bett na ma trop maa ngi dem tëdd di nelaw jékki-jékki yeewu. Hmm. ndekete yéen yéen a may yee quoi. Hmm. waaw. mais mais sant yàlla daal. micro waaw sant yàlla ñun wasaare lañ bokk. waaw moo tax yéen moom lu la neex rek def dafa la lu la neex. waaw micro Alioune Junior bu écurie Walo mbër ñu gis koor gi ñu ngi ci koor. ndax dañ ne mbër ak diine. ñu gis ne mbër gars yi dañoo yaakaar ni duñu pratiquer ci li nga xamante ni mooy seen diine. Mhm. mbër koor gi nan ko gàttandoo ba pare. waaw koor gi xam nga ñun moom. mbër teel micro bi ah. xam nga ñun moom ku ñu xam-xam ne ñun ay taalibe Serigne Babacar Sy lan mhm. ñun koor maanaam métti na daal koor moom ku ne méttiwul ku ne rek te fekk doo woor mais ñun tàmm nañ ko daal tàmm nañ ko depuis ba bay nekk ay xale yu ndaw ba tey ñu ngi woor waaw mhm. ah, mënuñu yàq dara. mën ñu yàqal dara. waaw. Mm-hmm. Ah. mbër mu wóor ak mbër mu wóorul ban différence la am. ah différence bi mooy kërti kërti day xaw day xaw a yem maanaam li nga daan def tey boo waree entraîné dem fajar gi dem entraîné ji doo ko mën ndax koor gi moom ku ne xam na koor moom kenn mënu ko booleeg yenn yi ndax boo boo dul lekk ba pare bugg a génne énergie loolu noonu da dalay faible lo mm-hmm. mais moom heure bu nu dogoo pare guddi gi moom dañuy dañuy entraîné. waaw incha allahu rabbi waaw ndax am na ay combat yoo xam ni préparé na ko ci koor waaw. am na ay combat yoo xam te ne préparé nga ko ci koor. waaw mbër ñu gis ni koor gi ñu bari. Mhm. dañ naan koor weeru promotion la. Mhm. weeru promotion bi yow nan nga ko déggee. waaw weeru promotion la maanaam xam nga weeru koor moom benn weer la rek ci weer yi. moo yeneen weer yëpp ay weer la rek mais dafa am ngëneel. dafa am ngëneel ndax si lay. lu baax lépp ci weeru koor bi lay wàcc mais yeneen weer yëpp yu baax dina wàcc mais weeru koor bi da cee raw waaw dañ ci wax nga ngay ci jaamu yàlla sàkk asaka muurum koor yooyu yëpp dafa fekk dafa dafa booloo dafa laxasu ci koor waa kon nag yooyu yëpp li suñ borom digle yëpp bis boo bu yaa ngi ci rek yow ku mucc suñ borom moo la muccal mais rafet nañ ci njot ni yooyu boo ko defee dinga mucc waaw ñu bari dañ ne koor dañ si jaamu yàlla mais est-ce que koor kese nga war a mën a jaamu yàlla. waaw ñun moom ñun de xamuñu keneen mais ñun suñu boobu xam nañ ko ndax ñun moom ci julli ak woor ak jaamu yàlla ci loolu lañ juddu ci lañ yaru waaw ah, te ñun teewaawoon lañ dëkk kon ñun lu ku ñu war a fonk waxtu wi ah, ñun teewaawoon man teewaawoon laa dëkk Kër Matar tey bu ñu génnoon fii Ndakaaru tey ñu man teewaawoon laay ñibbi. kon ñun par force dana war a jaamu yàlla muy neex muy naqa dana war a jaamu yàlla par force. waaw moo tax nag depuis ba nekkee ba ñu juddoo ba gimmili ko ba tey ci jaamu yàlla lan ci jaamu yàlla lan nekk waaw di ñaan yàlla nag mu gën a yokk waaw yàlla yàlla ñu yàlla gën a yokkal ñuy gën di jaamu suñu boroom bu baax a baax waaw. loolu ban âge nga commencé woon. man euh, ba may am ba may am sept ans xanaa huit ans. huit ans neuf waaw catégorie googu daal. Mhm. waaw. daan a waaw ndax euh, xam nga boo nekk euh, euh, sa yaay wala nga nekk say mag da lay yërëm ci koor waaw maa ngi fàttaliku ba may gën a nekk tout tànk su ma yeewoo ma ne damaa woor dañ may jox lekk na ma lekkal nga continuer sa woor waaw loolu lépp pour motiver la quoi waaw pour mu motiver la mais nag am na benn âge boo xam ne moom maa ngi dem woor moom. waaw maa ngi dem woor normal. waaw mais wooru gàlle daaw ko pratiquer. non wooru gàlle boo daan naa ko pratiquer mooy maanaam kon ba may nekk xale rek kon li la wax à de sept ans yooyu. huit ans ba jëm six ans yooyu. daan na boo nekk sa yaay dana yërëm ci ci koor dinaan ma lekkal boo lekkee nga continuer sa koor te xale tamit lu ko nax dafa yomb. noonu dong la demoon mais ba ma demee ba tollu benn as bi xam ne nag man damaa war a woor. waaw te ñun sunu kër gi ñu nekk. ñeme noon koor waaw ñeme noon koor ñun même sax bu dul koor ni léeg ñu diglee nii danga war a woor affaire yooyu noonu ñun dañuy woor waaw. jàngal ko man ah, am naa am naa ci lu may lu may jullee de. <laughs> kon yow ñi daara ñi nga daara kii fa yàgg fa yow moom fekk man moom jaaruma daara jaaruma daara jaaruma daara mais. jàng naa arab waaw yàlla dimbali ma daal am naa lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma loo xam ne daal mun man mun naa ko defal sa sa sam waaw alxuraan moom kenn du ko matal kenn du ko matal boo wàccee kaamil tamit alxuraan moom la ca ginnaaw da li nekk ci ginnaawam dafa dafa bëri waaw li nekk ci ginnaawam dafa bëri waaw mbër euh, mi ngi julli tàkkusaan te bala ngaa julli di jàpp xam nga. Mhm. di yéene jàpp. Mhm. tey su ma waxoon ne tari na benn saar boo xamante ni Alioune Sèye bari saar boobu noonu bu da koy tari. waaw xam nga mhm. xam nga julli moom. saar boo jullee loolu moom yomb na. waaw ah, benn faatee bu sell rek. boo ko boo ko boo ko mënee rek. julli na. waaw xam nga julli moom mettiwul quoi. waaw mais dañ la. benn faatee bu sell sax boo ko boo ko amee di si julli julli googu jaar na yoon waaw mais daal lu am lu am sens ba am sens mooy respecté waxtu juróom waxtu julli di julli di woor di jaamu yàlla di maandu bàyyi jëw loolu moom doom nit ki moom doomu aadama bu bu ko saxoo ku ne rek mun ngaa mucc sooy woor di jaamu yàlla di sàkk asaka di sàkk muurum koor di julli waxtu juróomi bàyyi jëw di bañ a duglu sa nekk suñ borom mun na laa dimbali. waaw te man yooyu yëpp suñ borom dimbali na ma ci. waaw du dugg si wax du ma dugg lu ma war ma wax lu ma warul wax. du ma wax lu ma warul wax du dugg si lu ma war warul dugg waaw loolu moom àdduna yëpp xam nañ ko nekkul micro bi moo tax ma koy wax. ndax man nee naa la man dafa am foo xam ne fa bokk kon am yenn yoo xam ne waruma waaw fa am yenn yoo xam ne waruma waaw. mbër kon kuy euh, ki nga xam te ne day woor. Mhm. war naa dugg ci lu yoonam nekk wala muy jëf. loolu kay mu ngi mel ni tey nga nga teg sa ndox rek wala nga teg sa yàpp di lekk. nee na boo wooree da nga war a maandu da nga war a maandu wax lu la wóor xool loo war a xool dugg foo war a dugg. da ma woor nekkul da dangay da ngay woor rek doo lekk doo naan rek loolu mooy woor non soo wooree da nga war di julli waxtu yi. di di jàng alxuraan soo ko mënee boo amee jot bi am ñoo xam ne toog di dañuy dem liggéey suñu wàccee lépp lu koor laaj nag di ngeen ko def waaw mais koor taamu nañ ci ngay teg sa tey kaamil di jàng alxuraan respecté sart yi la wax bokk ku wóor lool loolu la war a def waaw pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV te ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye Junior mu nekk doomu yëmbal nekk écurie Walo moom la ñuy waxtaan ak ñii ci li nga xamante ni ndax nee nañu mbër ak diine euh, Wassare Lamb nag dafa jóge foo xamante ni dal foo xamante ni macha allah li may wax rek gars yi ñaanal leen ñu yàlla rek euh, kenn ku nekk daal fi nga toog ñaanal leen ñu ndax ci koor lay nekk te gëm naa ne boo leen ñu ñaanee boo leen ñu ñaanee daal lépp day kii mais Alioune Seye Junior dañoo bëgg nga tere ñu benn saar. nga baaxee ko ñi nga te ñoo lay seetaan xam nga saar moom loolu ah, moom yomb na tari saar tari saar moom yomb na maanaam kon ban ban kon ma saar saar bu ma neex waaw bisimillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin amin Alioune Sèye Junior euh, lim tari oustaz bi après dinañu wax li nga xam te ne moom mooy Alioune Sèye Junior di mu tari après dinañu ko xam xam Alioune Sèye Junior juum na wala juumul yéen ñuy seetaan. après yéen yéen ay kii ah yéen yéen yéen a ñuy jugé. Mm-hmm. Junior. Euh, gannaaw euh, ba ñu jógee foofu noonu. Mm-hmm. ñëpp xam nañ tey doo dugg ci diine. Mm-hmm. ndax yow làmb làmb euh, mbërum làmb nga. Alioune Sèye Junior. ñaata combat nga def. man micro. man def naa dix huit combat laa def. am naa ci treize victoire cinq défaites. cinq défaites. nga dugg ci làmb daanaka. maa ngi ci dugg deux mille fin fin deux mille fin deux mille douze. Euh, yëkkati mais xam nga làmb mbapat nee naa la mbapat bu doon tey dañ ci nommé boo dañ ci nommé roi des arènes affaire yooyu noonu diggante Fass Mbao buun ba jàmm gën. benn baraak damay nekk roi des arènes. waaw ndax li ma fi def ci mbapat kenn defu ko fi kenn amul kenn ko ko fi def. boobu boobu boobu nee naa la boobu matuma 60 kilos masuma matuma 65 kilos. boobu ay cinquante boobu ay 60 ay 5 cinq 55 maanaam 60 yi daal matul. Mhm. nekk lu ndaw ku lakkale ku takk ku bëri woon ku bëri woon nag sañ-sañ boole ci. waaw nee naa la làmb moom mbapat bu doon dañ ci joxe roi des arènes yi diggante yëmbal fii benn baraak buun ba jàpp jàmm gën non kon damay nekk roi des arènes waaw mais nag bëre arène ak bëre mbapat bokkul waaw ndax boo nekkee boo demee arène moom dangay nekk koo xam ne da ngay màgg amee yenn yu risques yu bëri dootoo ko jël ndax doomu aadama yi dañuy dañuy toog taal seen télé toog di seetaan kon li Bombardier wax rek nee na boo daanoo boo daanoo si làmb chaque jour dangay daan ndax émission làmb yi di def dafa bëri ñu ci mel ne ay wasaare làmb chaque jour dañuy teg say say say defar kon chaque jour dangay ngay daanu waaw loolu moo tax bu ñëwee bu ñëwee arène nag dañuy xam ne arène leen di bëri moo tax yu bëri risque yu bëri doo doo ko sañ a jël. loolu kese la. gars yi ne mystique bi Alioune Sèye Junior yoroon euh, ba muy def euh, mbapat. Mhm. ak mystique bi mu yor bi mhm. amul parce que dégg naa sa mbapat. gars yëpp dañ la doon daw. Mhm. boo ne mhm. mhm. naa la bu may bëre mbapat barki sëriñ Babacar si billaay wallaay mosuma génn Thiès. mosuma génn Thiès su ma demee su ma su ma génnee su ma génnee damaa dem Tivaouane dem siyaara yi sama sëriñ sëriñ Babacar si. butéel duma ko jëlee foofu su ma demee damay ñaan ñëw def li moo def boobu sañ-sañ laa amoon di ànd ak samay grand ku ci mel ni ku ci mel ni ay Bada Amath Dia ay ñoom Aliou Yoro ñoom Baara ñooñu laa dem àndal ak samay gaayen ku ci mel ni ay ñoom baa Ba Ibra Laas mo ñoom amar Fall ah, yaa ngi dégg ñooñu laa dem àndal mbapat ay ñoom abusi ceeg ñooñu laa dem àndal mbapat ñu nekk ñoo xam ni tamit lépp lu mu dugg rek dañ ci dugg ba jeex àndoon ak sañ-sañ ndax ñi ma àndaloon doon amoon sañ-sañ ku ci mel ni ay ku ci mel ne ay Sidi nee naa sama mbapat ñi ma daan dar ñun dañoo amoon sañ señ te luñ ma daan wax demal daan rek nga ñëw demal daan nga ñëw waaw ah, bëri naa mbapat ba ba bëri naa ba lu ba lu toll ay ay soixante ay ay comme bëri na. musuma jugee làmb xoosu barki sëñ Babacar si musuma jugee làmb xoosu ma daan am sécurité bu mat sëkk te combat yi daan bëree dan daan wër am na benn combat yoo xam ne gars yi dañ ñu wër ak ay jaas yi boo ko daan da lay rey. loolu yëpp dul alxuraan ko te musuma ci làmb. Mm. te làmb ju ma bëre rek ay arme génn na fa barke alxuraan. Mm. mais yàlla daf ma dem suturaal yàlla daf ma dem suturaal si lu bëri. mbapat bu ne tey tey buñ ko daan bu daanee ñu rey la boobee gën a yomb te su bu ma daanee damay dem définitivement kenn du ma kenn du ma xoos. Mm. kon mbapat ak arène bokkul. kon ñun mënuñ ñëw si arène bi nekk nekk nekk benn nit boo xam ne danga koy wàññi ci wax mu mu non non waaw. junior sa premier combat euh, arène. Mhm. ñaata lañ la fayoon. waaw ah, li ñuy fay gars yi rek. kon ñaata quarante mille. quarante mille loo ci defoon. maanaam xam nga euh, quarante mille moom da koy dégg rek. Mhm. mais ñi nga ñi nga dem àndal ñooñu ñooñu ñoom ñooy gérer ñoom ñoo koy gérer. Mhm. waaw bon ñun boobu ñun lu ñu ñoroon mooy nun bëre arène génn ci télé bi waaw. Ah, boo nekkee booy di dem seetaan ay combat ay ay Balla ay Lac de Guiers ay Eumeu Sène nga nañ gis ci télé bi yow da dem rêver pour lan bëri ci télé bi yow ñu lay seetaan waaw ah, mais ñuy rêver loolu ba suñu borom defal nañu ko. di bëre grand combat koy wane en ci télé bi ak yenn ak combat yu bëri yoo xam ne dañu ko wane en direct ci bi nit ku ne di toog di ko seetaan say ànd jàmme say xarit say mag say sëriñ ñëpp toog di di seetaan waaw ñun lool ñun lool lan amoon. courage kii boobu lan amoon euh, nu ñu koy waxatee sax. waaw gëm-gëm boobu noonu ñun boobu lan amoon. di leen yàgg yàgg ñun di ñu seetaan ànd rek suñ bi te suñu defal nañu loolu. Mm-hmm. suñ borom defal nañu sant yàlla rek. Mm-hmm. gën a santaat bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw. Alioune Junior ñu bari na sa combat tey mu dee yi. da nga koo da nga da koo gagné. mais sa combat yi nga xamante ni moom la gars yi naan moo mën moom da ñàkk. ndax ku ci mel ni euh, Lo ba ngay bëri ak moom ñu bari dañ ne tey mu dee. Mhm. nga daan ko ku ci mel ni euh, Filikis dañ ci ñëw ku ci mel ni Brise de Mer. Mhm. ñooñu ñëpp nga daanante ay combat tey dee la. Mhm. combat yooyu noonu nan nga ko jëlee woon. waaw mais maanaam xam nga man moom ba ci mbapat sax ba ci mbapat dama daan am combat ñu ne kii kii da koy rey te boobu la combat bi di gën a yomb yaa mën Alioune Sèye moo mën loolu juguma combat yi ma ko def yëpp dama ñàkk combat yi ma def maa mën yëpp. dama ñàkk moo xoolee sama dernier sama ñaari dernier combat yi su ma nee favori nga nga fu mu nee favori nga rek ma leen noonu du du ma du ma du ma favori yaa ngi dégg maa man jigoo man chaque jour nañuy wax tey mu dee chaque jour nañuy wax tey mu dee ba muy bëreeg bébé Modou Lo gars yi dañ ne mooy bëreeg mooy bëreeg Félix mu mujj ko ci dóor mu daanu ñu noonu ñu ne tey mu rey ko mu ñëw yàlla defal ma daan ko jël bu yomb mooy bëreeg brise mer mu ñëw simmee ko ci stade bi sama supporters di jooy. di xalaat bu ndemee koñ ma su demee koñ ma nan la ñuy nan la ñuy waxee. Brise de bu dóor dóoraat boobu Yékini Junior moo ko indi. mu ñëw simmeeku suma supporter di jooy na ñoom bu ñoom waxuñu combat mais sa waaye tey daf may rey mais bu demee koñ ba lan la ñuy dund. maanaam noonu yeeg affaire yooyu noonu yaa may dégg ma ñëw ñu war a bëree sunu suma entraîneur ron mu may dégg ñëw ba ñëpp génn mun ma kii dafa ñëw tey pour rey la. dafa ñëw tey pour ray la pour humilier la waaw ah, léegi nag léegi li ci des mooy xam nga ko xam naa la xam naa ni góor yàlla nga xam naa ni borom fit nga mais kii foo nga xeex ak moom pour mun ko daan waaw. arbitre ñëw laamu ñu bëre boo xoolee Brise Mer yóbbu naa ko ñaari yoon ardo wane wane loo xam ne ba ma ko wanee ñëpp dañoo jaaxle ne Alioune Seye est ce que mu ngi woon kon xeex bi ma bëree pare du duma ko daan ko lu ko nit musu sa def. Brise de boo xoolee dafa duma dafa bëre Boy Niang duma ko daan ko duma ko ba pare boo ñaa daan ko ak yeneen champion yu yu fi nekk Brise de Mer laala naag ñoom bala nga ko ciy daan da da day duma nga dox ko daan. yaa ngi dégg Alioune Seye junior yàlla dimbali ko mu bëreeg Brise de Mer te ba may bëreeg Brise de boobu dafa baaxoon Brise maa ko daan rëg-rëg daan ko maa ko ba pare rëg-rëg daan ko mu jóge ci rëg-rëg dem ci Faalaay Balde eh, eh, kii Zil Balde junior yaa ma dégg mu duma ko daan ko. ma paree Max Mbargane woo ma ne ma wane nga loo xam ne kenn xamu ko foog ko woon ci yow ma ne ko lan la mënuma xeex mënuma wane nga loo xam ne kenn foogul ko woon ci yow. mu na ko nag ñun écrit wàll nekk di jàng ñu nekk sunuy mag ku ci mel ni ay Alioune Seye 2 Lac de Guiers 2 Abdou Diouf Alam Dar Mam Bou Arouna Sall suñu entraîneur Zil ñooñu di ñu tàggat kon ñun ñun daal écrit wàll daal ñun bàyyi. mbër buy xeex ñun ci mbër boobu lañ gën a aay waaw. Mm-hmm. ndax ba may mm-hmm. ba may bëree cointre boobu man dama nekkoon ci samay parcours tegal lu mat 4 victoire xaw ma 5 victoire dama bëreeg dama bëreeg Tigre daan ko bëreeg Burutan daan ko bëreeg Filikis daan ko bëree bëri ak bébé Modou daan ko bëree ak. ak euh, ba jóge silaa jógee sama combat ak bébé Modou Lo Vandam Vandam Vandam moo ma daan ma dem jël Cheikh Niang daan ko jël Brise de Mer daan ko boobu nag Quench amul adversaire bu bu ma gën a bu ma gën a fort boo may bëree ak moom sax ñu bëri nee na du ma moom mais man chaque jour rek su may demee sama fukk laay demee. ba ngay bëree Quench kon yaa ko rawoon. waaw déedéet rawu ma ko ndax ndax ndax Quench bu may bëree ak moom boobu daan na ay xaadim ngom. Xaadim Ngom rak Eumeu Sène dafa jóge ci combat moo Xaadim Ngom rak Eumeu Sène jël ma yaa ngi dégg mais bu may bëreeg moom ñu bëri dana bu bëreeg moom loolu du sa yoonu làmb mais man chaque jour rek man li may demee nee naa la man fugu jeunesse laa demee te man gëm naa ni man kenn mënu ma